jërëjëf Seydou ci conduite débat yi maa ngi yëkkatiwaat ay kàddu kàddu ngërëm la ak cant ñeel ñi fi toog ñépp bàyyi seeni yitte yépp ngir Sénégal kilifa diine yi kilifa aada yi organisation religieuse patronat, syndicats, groupements de femmes ou organisations féminines, artistes ñëpp ñi nga xam ne ci mbubu bu ñu fi mën a teewee jël nañu kàddu andi ay xalaat te lii rek moo waraloon ñu ne nañu toog waxtaan ndax xalaat yooyu ñuy taataan si la ngéneel mën a li ñu wax nag mooy ñu ngi jégalu itam ci jotaay bu yàgg bi yàgg na lool waaye kenn bougéwul te réew maa ñu seetaan ci télévision bi ak ci rajo yi ak ci diaspora bi ñuy sant nag waa Sénégal nit nag mën ñu xaar foo xam ne du fu baax waaye jàpp naa ne Sénégal du teer foofu am na jamono du yàggul trop semaine ba la ñu génn boo leen amee seetlu journal yu mag a mag yëpp yi ci àdduna bi yónnee nañ seeni correspondant jàppoon ne réew mi ci tàkk lay dem ginnaaw bi conseil constitutionnel waxee nee na di ngeen ëmbaat seeni bagage yóbbuwaat seeni kamana dellu delu nañu nak amna ñu desandi be tay japp ne du ñak dara tak yakkan na ne rew mi du tàkk te dina sam bopam ndax lu nit ñak ñak xam-xam war nga xam ne senegalu tay bi ak senegalu demb du ben jamono ji nga xamee ne gerte rek ak sidéem ak ay solom mo fi amone tey pétrole feeñ na gaz feeñ na te lépp a ngi ci suufu senegal kon lu nit gàtt-gàtt xalaat war na xam ne loolu am na ñu ñu ko gën a bëgg ñu ngi wër nag di wër di xool nu ñu indee féewale xiiro indi guuta ci réew mi kon jotaay bi dafa am solo jàpp dat warul indi jafe-jafe kañ lañu dem élection mu des si waxtu benn benn weer wala ñaari weer wala ñetti weer loolu bu fekkee ne gëm nañu suñu bopp gëm ne réew mi la ñu liggéeyal warul am jafe-jafe kon dama bëgg ëllëg ñi nga xam ne ñooy toog ci commission ñaar dong la benn bi ministre de l'intérieur moo koy jiite ànd ak directeur général des élections su ko defee proposition yi ci ngeen ci dugg ci biir xool liy jafe-jafe Manam, amna ñu wax weeru koor dana jafé nga dem campagne boobaa xaw ma ku lay taxaw di lay meeting nga la fecc loolu mom gëm naa ne dana jafé lool mais ngeen xol ko ndax mën na nekk am mënul nekk loolu ñoom buñ ko xoolee xol fête yi nga xam ne dafay engagé réew mi ci fête chrétienne musulmane ñu calculer def li ñuy wax computation Daaka Medina Gounass ñoom sëriñ bi yónnee na juróomi yoon si man ma Daaka bi c'est du 27 avril au 6 mai xam nga koo kon mu ngi yëglu parce que Daaka bu jotee boo demee Fouta moom lu ko dalee Dagana ba ba ngay ñëw Tamba ñëw Saloum doo fa gis kenn pareil pour Kolda foo ñu tenir compte ci contrainte yooyu nga xam ne moom moom méngoo ak sunu dund ni réew yooyu buñ ko génnee rek mais convergence day am. convergence di daal di am taxaw si saas kon lii des vraie équation bi mooy li ñu wax fii ndax dañu jàpp dix-neuf yi rek continuer am nañu ko xalaat am nañu ne faw ñu ubbi tuuti te fexe ba dix-neuf yooyu seeni acquis muy droit acquis kenn bañ ko laal loolu it xel mën na ko dégg loolu ngeen war a lijjanti loolu mooy équation bi kon bu may xool pour man date bi du problème parce que boo leen toogee computer xool aussi li code électoral wax parce que loi tam waruñ ko waruñu ko violer le code électoral dafa wax lu leer ci les délais pour faire une élection entre date bi ñuy jël décret bi ak date élection bi am na lu mu néew néew 80 jours loolu c'est la loi LO 137

Sénégal dafa bëri borom xam-xam dafa bëri ay juriste ay junney junney juriste ñoo am ci réew mi ak ñi nga xam ne duñu juriste xamuñu droit waaye dëgër nañu fit dëgër goo xam ne dañu interpréter constitution donc comme nag loolu am na ngeen waxtaan si xool ban xalaat waaye foofu tam jàpp naa ne bu divergence amee dernier mot ça va revenir au conseil constitutionnel ci l'eau période post 2 avril 2024 Maintenant, je suis en sama de ak sama C'est vous c'est clair dire na sec sec vous ci mbir mi si si si c'est pour vous dire que fini ñu mais nañu intérêt bi te fii ak booba wax dëgg yàlla war nañ mën teg réew mi ci jàmm bay def élection kii gagné gagné contestation du am ñu jox ko caabi mu daal di moom it doxal nag il faut que nit ñi raisonnable il faut que nit ñi raisonnable surenchère bi dafa bëri surenchère bi dafa bëri te tegul fenn tegul fenn kon jàpp naa ne ëllëg commission yi ñaar la boobu deuxième bi ministre Ismaïla Madior Fall mooy jiite commission bi ci turu ministre de la justice garde des sceaux ñu xool interprétation yéen a xam daal loo leen di def ah su ma jotee conclusion yi nag date bi moom dinaa ko décider ginnaaw bu ñu taataane xalaat yépp boobaa nag ñu jàpp ne loolu mooy nekk date élection voilà il na fekk que mu am convergence am consensus su boobaa coow du am su boobaa day yomb président ginnaaw concertation moo ko joxe daal di signé si loolu li nga xam ne jara tënk li ci des yëpp nag amnistie dégg naa nit ñi wax xam nga politique ku nekk am nga sa sañ parti bu ne mën nga wax la nga xalaat man waxuma ci turu sama parti damay wax en tant que président de la république gardien de la constitution garant de garant de l'unité nationale kon responsabilité yi du ñu benn ku neex mun nga xalaat lu la neex man laa wax tant que njiitu réew loolu laa sàkku ci askan bi ak ci député nous am dépassement am pardon am réconciliation ça ne veut pas dire nit ñi gisuñu ñaawteef yu fi am mais boo bàyyee yeneen ñaawteef yu gën a garaaw mun na am yeneen i bakkan daanu kon réew day toll foo xam ne dañuy dépasser, li nga xam ne moo ci xol yi